après mu daanu nguur bu nekk nag Ablaye Wade Macky Sall ba euh, euh, Bassirou Diomaye Faye te Air euh, Sénégal patrimoine la boo xamante ne en fait genre ci avion bi lañuy wax mais man maa bëgg dérivé rek pour wax wax surtout ci Air Sénégal parce que Air Sénégal quand moom moo affrété li nga xam ne nii mooy kii bi avion bi doole bi nga wala sax du sax doole liggéey bi nga xam ne nii moom lañu ñu war a def ci Air Sénégal dafa dafa dafa bëri li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy reproché Air Sénégal yëpp gis nga boo duggee ci seen seen canaux de communication yi li leen sénégalais yi di yàq par jour doo ko sax comprendre ci ay manquement ci yu bëri yoo xamante ne nii pour man non tar tarde sax moo gën a tarde sax moo gën a moo gën a simple yow da gis koo xamante ne nii dangay am vol non seulement sa vol bi dañ koy décaler duñ la wax yow kañ lañ koy décaler mais bàyyi buñ gis nga buñ la bàyyee aéroport mun nga faa def benn vingt 24 heures boo xamante ne nii yow doo xam yow ak quel saint te doo xam koy waxal. du am benn information. ay problème yu dul jeex laa la wax la Air Sénégal di jànkonteel te loolu man pour man manque de volonté la ci dëkk bi nga xam ne nii mooy suñu dëkk bi ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo koy gérer. gis nga boo lu mel ni boo jëlee lu mel ni boo xoolee lu mel ni euh, RAM Royal Air mais ñoom gaa sax xëy na peut-être mun nañoo wax ne dañuy wax ne xëy na peut-être dëkk bële royaume la bu buur moo fa nekk te dina ci mi ci ciy góorgóorlu mais ci yeneen dëkk bu nekk lii nga xam ne nii mooy transport vitrine la boo xamante ne nii dafay joxe ay signal yu positif yu fort ci dëkk bi nga xam ne moo koy mi ngi noonu premier ambassadeur donc ki nga xam ne nag yow moom moo lay wone fa nga xam ne mooy ci yeneen dëkk yi kooku danga koy solal ba mu jag defar ko ba mu baax pour mun ko présenter yeneen dëkk yi et boo gisee lii nii am am na ay euh, man am na benn benn benn benn euh, ay benn organisme organisme la sax boo xamante ne te am na ay journal yu ko wax ñu ne bu euh, avion bi def na plus de def na trente ah, ci ci ci at. mais mais. 30 ans mais ak même si c'est pas vieux 30 man par exemple man man mu man man maa ngi doon am 30 ans man par exemple donc ce ce qui veut que man ak avion bi ñoo tolloo maa ngi doon am 30 ans man ak avion bi ñoo tolloo man loolu waa ñoo maase donc loolu man. pour man même bu fekkee ne xëy na peut-être am na loo xamante ne nii c'est une partie purement technique dañ koy bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa BA dinañ ko dinañ ko leeral mais avion bu am 30 ans quand même dañu waxante dëgg ci jamono gi ñu toll nii nga xam ne nii technologie avancé na avancé boo xamante ne nii il faut à chaque fois ñuy jéema xool même bu fekkee ne euh, euh, taxu taxukaa yàgg noonu ci ñenn ñi mais ñu koy ñu ñu koy ñu ñu koy defaraat wala mu am entretien bi nga xam ne mooy bi gën parce que aussi tamit. c'est pas une wala yu mel noonu. mais mais damay damay yaakaar ne rek xëy na peut-être mën na ko nekk parce que. boo xoolee même dans dans dans l'historique de de cette compagnie. de de de cette euh, entreprise. qui <laughs> fabrique des avions di Boeing. ñaata avion Boeing lañu ñu génne ci